mën nañu bañ guddal sax te jaayu it amu fi waaye itam dafa am lu garaaw ngeen di ma baal yenn kàddu yi daa am na yu nga xam ni pour mu leer dafay tax nit ñi mën a xam yenn jëfandiku yi lan moo nekk ci suuf Sëriñ bay Si Mansour bii dafa dem dëkk bu nga wax Palmarin fii ci Mbuur am fa jibarkat bu fa nekk mu jël xaalis bu bare bu bare jox ko ni ko xam nga lu ma bëgg mu ni ko am ah, mu ni ko benn doomu Sëriñ Babacar bu mu taxawati ci kaw suuf benn setu Sëriñ Babacar si bu mu taxawati ci kaw suuf ci moment bobu ci le Pape malik tam ñu paré nak ni ci man lañu jëm ci ndax lu ne xam cosaan bi dafay baax mais xam nga lu ci am solo mbokk a ngi toog fii bu ñuy wax Abou Bakr Dia di doomu góor gi Ousmane Dia moo daan ànd ak Chérif Tahir moo gis maam Habib si benn rakku maam El Abdou Aziz si mam Habib wax ko moom Abou Bakr niko ko waxal Moustapha ni ko bu mu tiit bu mu ragal ni ko ndax mag ñi kenn toogatul ndax yàlla ak moom mu ni ko te boo demee nga wax ko ni ko dese na nangami at ci dundam ma defe ni kan nag ku yàkkamti demal ca bàmmeel ya xaar ñu du dëgg waxin la rekk C'est l'éternelle répétition de l'histoire.